aca salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi nuyu nañ leen bu baax ziyaare leen xam nuñ koy defee saa su nekk nee naa leen seen mbégte mooy suñuy te ba tax xew-xew bu jug dañuy ànd ak yéen tey nag ñu ngi fii si Grand Yoff fas yéene gis ak askan bi waxtaan ak ñoom si fête bu rëy bi nga xamante ni nar naa am suba diggante ki nga xamante ni mooy suñu papa Youssou Ndour ak ki nga xamante ni mooy suñu papa Wally seek Wally Seck mu ngi 2STV Youssou Ndour mu ngi TFM ñu gisee gars yi nag xam ki ñuy seetaan ak ki ñu gën a bëgg ak ki nga xamante ni mooy yëngal Sénégal damay ànd sama caméraman bi rek ñu daal di ànd dem seet seeti gars yi waxtaan ak ñoom. noo def. maa ngi fi maa ngi si jàmm bu baax man xawan Fall. xawan Fall ngay préparé 31. 31 maa ngay préparé comme yeneen 31 yi fi jaaroon rek. Ah. a euh, ñu gis que ne euh, Wally Seck day teg fi nga xamante ni mooy 2STV Youssou Ndour di nga teg fi nga xamante ni mooy euh, TFM yow kañ ngay seetaan. man moom Wally laay seetaan. man sama fans Wally laay bëggee te moo xew wax dëgg yàlla Youssou Ndour du am dara. Hmm. waaw. ndax nga ne Youssou Ndour du dara. non Youssou Ndour Youssou Ndour bala ancien la na instant bi booy bi moo xew moo xew mooy bomb booy bi moo teg tànk instant bi kii bokkutul Youssou Ndour bokkutul Wally mooy bomb man Wally laay seetaan man dégg naa ñu ne euh, euh, Youssou moo dàqa woy Wally Seck non ci ñi koy wax mais man moom ku képp ku yor micro Wally pour man mooy sa papa man Wally moom lay bëggee waaw sama téléphone benn son nekku ci ku dul Wally Seck Wally rek Wally rek lay déglu dégluwuma keneen. kon baax na merci beaucoup. ok waaw ñoo far. nuyu naa la. waaw ñu ngi delloo fay ñu lay fay bu baax. yaa ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm baax a baax. ñoo tudd. Serigne Tambe di ma. Serigne Tambe ah, Serigne Tambe waaw. Ah. Serigne nan ngay préparé 31 bi. ah ah di ko préparé ba mu baax rek. te di ko waajal bu baax. dafa seenee dem seetaan Youssou Ndour. seetaan yi Youssou Ndour. waaw li mu ngi tëgg 2S Youssou Ndour di tëgg TFM yow Youssou Ndour nga fa séenee seetaan. non wax dëgg yàlla moom Youssou Ndour rek laa préféré pour seen seetaan quoi. non Youssou Ndour dafa mën a way ndax moom wayam da ci yeete quoi te loo lépp lu mu way rek dëgg lay doon quoi ah moom waali moom wax dëgg xam nga rek waali moom daal du sa woy ko daal. non bi da nga naan waali mën na woy waali wala waali mënul woy. non waali moom mënul woy moom. mënul mënul woy de non Youssou Ndour daal moo mën a woy. non Youssou Ndour li muy woy da koy teg ci temps di way lu neex di yeete quoi ndaw ñi ji gis seen bopp et puis mu nekk ku nekk ku nekk nu ngoo liggéey daal. waaw loo tax daal nu bëgg ko daal waaw loo tax nu bëgg ko. bi nuyu naa la. fay naa la soxna si sant bu wér kay Aliou Ndiaye waaw ay 31 bi de xam nga rek man de ay jàng laa ko doon kii fële Liberté 6 waaye xam naa ne comme corona bi nii moo tax du am waaw. waali dina ko neexal ak ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour ndax waali mu ngi tëgg fi nga xamante ni mooy 2STV Youssou Ndour di tëgg fa fi TFM yow kan ngay seetaan man waali laay kii waali ak baayam ak yu con sa kër yaayam ak yëpp waaw man Waly laay seetaan de waaw. man damaa dégg ñu ne Waly Seck mënul woy Youssou Ndour moo ko dàqa woy. waaw loolu de mun naa nekk waaye yëf yi nag maanaam daa day toll foo xam ne nii ki ci ki taxaw ak ki nga xam ne wóoyoon na ba kii bokkul waaw temps yi moom Waly la waaw yi ñu toll nii Waly la waaw. yow daal Waly nga choisir que Youssou Ndour. waaw léegi coono yëpp laa choisir fee fee Faramareen oui waaw. ci loo nekk. ça va. maa ngi sant. ay préparé 31. ah maa ngi koy préparé. Youssou di tëgg TFM Wally di tëgg 2STV yow kañ ngay seetaan. ah man moom ñaari yëpp lay seetaan ndax des fois may seetaan Youssou Ndour des fois ma seetaan Wally Seck. waaw yow kan mooy sa fan xale yi waaw. ah Youssou tamit day yëngalaat rek ndax des fois da ngay déglu son muy woy ay son amour xam nga des fois ci tiire ay leçon yu bëri. waaw ah. kañ nga ëpp ki ngay déglu Waly la wala Youssou. non Youssou Ndour laay ëpp ko may déglu waa Youssou moo. damaa dégg ñu ne Youssou Ndour moo daa xaway Waly. ah man nag Youssou Ndour vraiment bëgg naa ko nag waaw te dama koy déglu tout le temps merci. ça bien. ma tudd man Ndoumbe Diop. waaw Ndoumbe entre waa entre Waly Seck ak Youssou Ndour yow kañ ngay déglu. man ñoom ñaar ñëpp laay déglu. Mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp laay bëggee. Mm-hmm. kenn ëpp li ngay déglu Wally la wala Youssou sama téléphone ñoom ñaar ñëpp ci fees su ma dégloo Wally boobu yàgg ma déglu Youssou Ndour. suba benn benn si benn seen nga jàpp 2S ngay jàpp wala TFM. damay ba mu yàgg ma seetaane ba sama xol sedd après ma tourné TFM. mais Youssou Ndour moo dàqa woy Wally nangu. a mën a woy waaw. as Awa. Awa ñu gis ne 31 bi euh, waale day tëgg 2S Youssou Ndour di tëgg TFM yow kan ngay seetaan. man Youssou Ndour. Youssou Ndour ngay seetaan. ndax ngay seetaan Youssou Ndour te doon xel ngay seetaan daa waayam dafa neex rek. man jàpp nga ne Youssou moo daa xawal waay. waaw wow. Ah? rek foofu rek dëkk. <laughs> ah. si Youssou Ndour. Ah. waaw ah. mbaa faramaare yi duñ la dóor. dóor <laughs> kenn ma laal <laughs> déedéet waaw baay. suñ bi nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay fay soxna si. ñooy sant. noo tudd. Mouhamed man la borom iPhone yi. lu waay gàtt dégg-dégg ku ne waaw 31 bi suba noo koy préparé. Ah, ñu ngi koy pare de. incha allah waaw. ñu gis ne Wally Seck day tëgg fi nga xamante ni mooy 2S Youssou de di tëgg TFM yow kan ngay seetaan. wow xam nga ne Youssou Ndour day xaar ba jamono ne kenn du maar waaw doomu góor jooju champion bi turki jam kenn du ko jam di naani ci mim réew bu tëggee képp ku tëgg ku ne da ngay xaar cool yi bari na nag mais kenn la macha allah fa tabaarakallaahu mu ngi ci liggéeyam gëm na boppam nangu naa liggéey. te it macha allah mu ngi jàppale néew di doole yi moom kenn du ko tëkkalee kenn franchement. man dégg naa ñu ne Youssou Ndour moo daa xaw a Wally. non du maanaam bu dee wàllu wàllum woy maman yi ñun sëni maire yi paa ñun Wally lañuy wër ba jamono neex Wally lañuy wër te ñëpp boo dégloo son Youssou Ndour déglu son Wally nga xam ne Youssou Ndour ak Wally bokkuñu Wally kenn la boo wéete rek ay waay kenn maar. barki borom daaru. sëñ bi noo def. maa ngi fi. yaa ci jàmm. bu baax. noo tudd. Malick. waaw. Malick ñu gis ne 31 bi suba yu sunduur day tëgg TFM Waal di tëgg 2STV yow kan ngay seetaan. man yu sunduur lay seetaan. waaw Youssou Ndour kenn du ko yemale kenn Youssou Ndour bu tëggoon asamaan sax concert am day fees dell waxuma la nag. non Wally day tëgg mu fees Youssou Ndour tëgg mu fees yow kan mooy sa fans. déggoo lu ma la man Youssou Ndour mooy sama fans li fi def si musique kenn du ko def si musique loolu moom bu yeboo ñu nangu Wally jàmbaar la ndaanaan la xale la mais Youssou Ndour moom naa la xamal benn affaire moom comme Ablaye la rek ak Macky Sall. damaa dégg ñu ne Wally daa a Youssou. loolu moom waxu fans la rek mais ku nekk xam na ne Youssou Ndour li mu def si musique Wally moom du ko mus def si musique jàmbaar la nag mais Youssou Ndour moo ko mun fuuf. mais Wally moo ëpp Youssou Ndour non xam nga boo xoolee tey musique moom yaa bëgg a xam comme moment bii ñu toll nii moment képp koo xamante ni tey yow ay affaire solo ngay gis wala ay affaire yeneen mun nga déglu waale wala leneen di ko seetaan mais kanta boo buggee dégg li nga xamante ni tey moom moo fi jàll nekk fi tey te muy ñëw suba non demal nga xool Youssou Ndour quoi wax fa dëgg yàlla moom musique bi moom ay message yu am important la si lancé quoi te képp kuy déglu Youssou Ndour moom wax fa dëgg yàlla si côté bopp di nga xam ni ngay gérer sa lépp nag man daal Youssou nga fas yéene déglu suba. man daal yu rek. Youssou si kanam. ama soxna si noo tudd nuyu nañ la. fay naa leen. yaa ngi maa ngi ci jàmm ba. noo tudd. Bernadette Mendy. waaw Bernadette ñu gis ne suba 31 bi nar naa neex diggante Wally Seck ak ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour Wally 2S lay tëgg Youssou Ndour TFM yow kan ngay seetaan. man Youssou Ndour laay seetaan ndax moo ko njëkk juddu ci woy waaw man moom man moom fan si Youssou Ndour laa moom wax dëgg yàlla moom. nga ne Youssou Ndour moo njëkk a judd si woy mais Wally moo dàqa woy Youssou Ndour non non Youssou Ndour du moromam Youssou Ndour fa muy woyee ak fi Wally di woyee du benn sax bokkul sax ah maanaam expérience yi ñoo bokkul daal ak dégg-déggin bi waaw. est-ce que du ay waxi fans ngay wax. non waxuma ay waxi fans li am laa la wax. jàpp ne daal Youssou Ndour moo daa xaw a du moromam waaw. kan man Youssou Ndour laay déglu. dafal ne koy déglu entre Wally Seck ah. daf maa neex rek. neex na mu tuuti waaye Youssou Ndour moomu gënal. waaw. yaa ngi ci jàmm. maa ngi déglu entre Youssou Ndour ak man ah man damay déglu Wally Seck damay déglu Youssou Ndour. damaa bëgg nga wax kan mooy sa fan si Youssou la wala Wally. man man Youssou Ndour laay gën a déglu ko Wally. si ay woyu Youssou Ndour. ah xam naa si ay fu muy woyee ay mbégeel lisloo ak yu bari daal. lu tax doo déglu Wally te Wally di woyal xale ah waale pourtant neex na ma de te benn som moom dam koy déglu mooy fu muy woowee Ngouda Amina waaw ah, boobu mooy dam koy déglu waaw. merci beaucoup. Mhm. jaajëf. nañ la. fay naa leen. yaa ngi bu wér. ah. ah ni ma tudd moom luñ cee laaj. <laughs> mbay ngay laa tudd. Euh, tey ñu gis ne Wally Seck day suba day tëgg 2S Youssou di tëgg TFM yow kañ ngay seetaan suba. Wally lay seetaan. waaw. ah waaw Wally ma kii rek mooy xam ne ko gone yi ah, daal moom wax dëgg li mu woy li moom wax dëgg yàlla am daal kii na. ah danaa ko. ñu ne Youssou Ndour moo dàqa woy Wally. waaw waaye Wally li muy def na solo. waaw ah. foofu laa yem. Mhm. man Samba. Samba ñu gis ne Waly day tëgg suba 2S Youssou Ndour di tëgg TFM yow kan ngay seetaan. ah man Waly laa seetaan. Mhm. man gone Waly pire la mhm. dégg naa ñu ne Youssou Ndour moo daa xaw a waal. waaw ah, man mun moo ko góob sama man moom laa fam nuyu naa la. maa ngi lay fay. maa ngi si jàmm Birame Ndiaye. Mhm. Birame ñu gis ne 31 suba bi Youssou Ndour day tëgg TFM Wally di tëgg 2STV yow kan ngay seetaan. non man moom Wally mooy sama woykat. Mhm. parce que ay xale lañ ko te yëfi xale la ñuy def bàyyi ñoo waal Wally rek waaw. dégg naa ñu ne Youssou Ndour moo daa xaw a Wally yow nag. ah waaw ku nekk li nga gëm rek mais man laa gëm moom laa bëgg. Mhm. waaw moo daa xaw a parce que mooy sama woykat. merci beaucoup. nuyu naa la. waaw fay naa la. sant yàlla alhamdulilah Daouda Diakhaté waaw. Daouda suba 31 bi Youssou Ndour day tëgg TFM wala di tëgg 2STV yow kan ngay seetaan. non ñun ñu ngi moom waaw Youssou moom moom ñu ngi ci ba géej gi fer quoi waaw xam nga ne Angleterre ak pomme kenn du ko jaawale quoi te Youssou Ndour xam nga fajar la judd waaw. waaw dégg naa ñu ne euh, Wally Seck moo daa xaw a Youssou Ndour yow nangu nga. non yàlla ak yàlla la yéen xam ngeen yéen xam ngeen dëgg gi bu mu féete sax Youssou Ndour li Youssou Ndour mu woy fi mu ne nii boo ko doon dugal ci ay magasin ay conteneur du fees comprendre nga waaye li mu woy boo ko dugaloon ci oto bi léegi mu fees waaw bokkuñu te Youssou Ndour ba léegi mu ngi def xam nga ñaata at la am am na presque cinquante ans ba léegi mu ngi dóor. mais dégg naa ñu ne ak léegi ba tey bokkul. dégg naa ñu ne Wally moo mujjee judd waaye mu ëpp Youssou Ndour ay fans. non Wally moom comme li nga wax léegi rek vraiment ren yi ñoo ko topp ak mooy loolu. boo yeeg yooyu xam nga rek ñaa nga xamante ni seen expérience soriwul mais Youssou Ndour li muy dóor moom bokkul ak li Wally di dóor waaw Youssou Ndour waaye mag mën na koo déglu xale mën na koo déglu waaw Wally nag moom xale ñoo waaw la amal affaire. ak si jàmm ak si jàmm bu baax Fatou Diop laa tudd. waaw Fatou ñu gis ne Wally seek suba day tëgg euh, 2STV Youssou Ndour du tëgg TFM yow kan ngay seetaan. ah man de su ma sañoon kii laay seetaan 2S. seetaan ndax waali moom moo gën a intéressé waali xale moo gën a nekk si temps bi moo gën a nekk si temps bi moo gën a nekk xale moo tax moom laay seetaan man ba mu jeex ba fajar jar na ma ma toog seetaan ko ba fajar. dëgg naa ñu ne uh, Youssou ndur moo dàq woy waali yow nangu ah waaw mun am mu ne am na ñoo xam ne Youssou mooy seen waykat am na xam ne waali mooy seen waykat dafa am. yow diggante Youssou Ndour ak waali kan nga jàpp ne moo ëpp ay fans. man ki ma ah ki moo ëpp ay fans. mooy ki nga xamante ne moo moom moo gën a tegu si temps bi rek instant bi man waali laa daa tànn moo tegu si temps la gël doon booy foo tourné ni waali faramaareen bi waaw waaw waaw ban woyu waali laa mën a woyal su lay reer dox di dem ñi ngi koy xàmmee si bidéew dëgg yaatu àdduna xel laa yaay lépp xel la. yaa nuyu naa la. maa ngi lay fay. maa ngi ci jàmm bu baax. Aminata ture laa tudd. waaw. yaay Aminata ñu gis ne suba Waly Seck day tëgg 2S Youssou Ndour di tëgg TFM yow kan ngay seetaan. ah man de Waly laay seetaan man Waly moom mooy sama fan sa man moom Waly laay wër man waaw waaw. waaw seetaanoo Youssou Ndour di seetaan Waly. non Youssou Ndour dinaa koy seetaan sax mais li ci ëpp ko bari man Waly rek laay déglu. waaw moo gën a nekk sama fans daal ndax woyam dafa daw yaram dafa ma neex tamit moo tax. damaa dégg ñu ne Youssou Ndour moo dàqa woy Waly Seck. ah Waly tam booy seet mën na woy de Waly moom mën na woy moom Youssou moom mën na woy gaa mais Waly moom dafa am bayra tamit Waly moom daanaka fans meer yeeg xale yeeg ñëpp la moom Waly moom ñëpp a koy déglu moom ñëpp ko bëgg moom. yow diggante Youssou Ndour ak Waly kan nga jàpp ne moo ëpp ay fans. ah am nay fan yuusu moom am nay fans moom mais waali tam am na fans moom waali moom am na fans moom. yow ban woyu waali nga ñu mën a woyal. Euh, nu mu tuddati sax woyam boobu lay fàtte waaw ak ak ak xale yi boobu moom mënuma koo woy moom <laughs> xanaa kii woyal ma ko waa moo ëpp lu may déglu moom <laughs> mooy xale bi ma gis ci mbedd mi moom mi ngi door naan ani sama yaay boobu moom dama koy déglu moom ndax dafa daw sama yaram boobu moom bu ma bëgg la. gis ne suba Wally sekk day tëgg 2STV Youssou Ndour du tëgg TFM yow kan ngay seetaan. waaw ah, Youssou Ndour la ñuy seetaan nag waaw parce que dañ si bëgg a jëlee message boo xam ne dinañ si jariñu daal waaw. kon da nga bëgg wax ne ay wari Wally message yi duñ si du ngeen si jëriñ. non Youssou Ndour la ëppee nag waaw. damaa dégg ñu ne Wally moo daa xaw a Youssou Ndour. non loolu moom amul <laughs> papa ak doom la Youssou Ndour mooy papam ah, waaw. merci beaucoup waaw jërëjëf. ne suba Wally Seck day tëgg 2S Youssou Ndour di tëgg TFM yow kan ngay seetaan. non man maa ngi ci faramareen bi. waaw pom du moromu neew de affaire bi Wally la waaw Wally du moromu Youssou Ndour sax. non dëkk njëkk si bagage yi rek mais Wally du moromam de. bilaay yow xoolal Wally bi mu duggee si bagage yee léegi yaagul am na fi lu kenn amul xool ko dem na ba léegi am na link sax ak Chris Brown xoolal loolu. waaw voilà mu ngi noonu. waaye dégg naa tamit ñu ne euh, Youssou Ndour moo ay fans waali. fans non non Wally 31 décembre fii xoolal circulation fii lay commencé ba Grand Théâtre oto du am fu mu jàll te lépp Wally wala yëpp kon xam nga ne Youssou Ndour du morom Wally du morom Youssou Ndour waaw Wally du morom Youssou Ndour de waaw te suba dañuy dem tey dañuy dem tamit en plus waaw dem neexal ko ba mu neex affaire bi Wally la kan non man kay waali ay soom li ma si jàpp bari na album bu bu génn ma jàpp ko <laughs> non ko li ma bari na ay ku lakk daay gi xam nga ay taxi loof xam dama xaw a nekk di si liggéey sax mais bu doon naa loolu damay ñëw xoola man ak yow ngoon ma lay wayal nii ngay dégg billaahi <laughs> non <laughs> aca merci beaucoup comme ni ñu leen ko waxee gis ngeen dégg ngeen askan bi ñoom lu ñu wax si diggante ki nga xamante ne nii wooy Wally Seck ak Youssou Ndour fan si Wally sekk yi wax nañ fan si Youssou Ndour yi wax nañ nee naa leen du ñu tàyyi di leen defal li nga xamante ni mooy seen bëgg-bëgg ndax nee nañ leen kat seen bëgg-bëgg mooy suñu yite boo tax lu ngeen bëgg lu nekk dañuy wàcc si terrain bi giseek askan bi waxtaan ak yéen kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jox leen rendez-vous ba beneen allah merci beaucoup jaajëfal sama caméraman bu ñaawul bi jaajëfal tamit seen sama sama xarit bi merci jaajëfal yëpp jox leen rendez-vous euh, ba beneen yoon incha allah ak yeneen i xew